jërëjëf jërëjëf Mathieu ah. ma ñëw Cheikh Amadou Bamba Fall euh, kaddu Alioune Tine yi aussi euh, créé na euh, la zizanie ak ak aussi ñu bëri di ci wax. Mhm. Ah, jàpp ne kii di premier ministre bi dafa am pouvoir président wala président aussi amatul ndogal ci réew mi Ousmane Sonko mooy diriger yan kàddu kaddu yi ni mel ba wax état pastefien yeeg yéen yu bëri wax na ko mais ban jàngan nga am aussi ci ay ay kaddu moom. waaw jërëjëf dama jàpp ni Adama. Euh, moom nagu sarax la. kon moom nagu sarax la. jamono ji ku bokk APR. Mhm. doo ko gis mu ne ci plateau maa muy wax yenn wax xamul mhm. xam nga lu tax bu tekki woon dara fa mu ne duñ ko saraxee nii ñu ko saraxee. ah mais bu tax nga jàpp ne nagu sarax la ak. dañ maa ngi ñëw rek. Mhm. damay ñëw de gis nga débat public bi moo soxla. xam-xam moo soxla dëgg gis nga sànq li tax ma la doon wax ne amaguñu opposition li déterminer opposition da cee bokk la vérité ak xam-xam te newul ci ñoom li may wax créé wu ma ko moom moo toog publiquement ne diggante Diomaye ak Sonko neexatul mhm. vidéo yaa ngi fi et c'est pas vrai moom moo toog publiquement Adama Fall mu ne Daouda Ngom jarbaatu Ousmane Sonko la parce que moom ak ki nga xam ne mooy yaay Ousmane Sonko ñoo bokk te du dëgg moo tax ma lay wax ne dañoo fonde woon seen politique ci wax lu dul dëgg génération d'idées bii ñëw di génération xam-xam ñun politique ngir njariñu dañoo politique ngir jariñe moo tax suñu lépp ci dëgg lay tegu. ok ñun du ñu ay politiciens politicienne comme ñoom ni ñu ko doonee xaste saaga Adama dana leen seen xel kenn du leen doon kenn du leen doon lacrymogène incha allah xam la mooy seen lacrymogène xam-xam ak idée teg ci table ji lu weex tàll ñu indi débat bu ngeen mënee li ngeen di débat incha allah bu ngeen di cee kat ñu topp leen waaye li bañ mooy tey ji créé nañ. dañuy jéem di créer loo xam ne yi ñoo leen suur xamul tax mooy sénégalais dal leen a mos 12 ans ñu war a ñëw présenter un bilan probant mm-hmm. yàlla xam ne ni defuñu ko mais li ci gën a métti sénégalais yi mooy wax lu dul dëgg bi il continue jusqu'à présent il ose fréquenter les plateaux Adama Fall or que Sénégal gi yépp xam ne ni kii fii wax na lu dul dëgg fii wax na lu dul dëgg et ils veulent permettre aux gens que ñu croire ko ñu gëm ko te li ma ci wax créé wu ma ci dara ku dugg ci internet bi gis ko. moom la de mu ngi nii. donc loolu lu ma doon wax la ngir wax leen ne sénégalais yi. mun naa siifa ñu ngi ñaan. Ah, ah, ngir wax leen ne sénégalais yi ngir wax leen ne sénégalais ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla. ngir wax leen ne sénégalais yi. dal leen di ñaan. ñaanal leen ñun ñii ñu soppeeku fekk suñu ci terrain bi ñu nekk parce que xam nañ ne donte ñun 50 pour cent la. te des na 46 pour cent te 46 pour cent yooyu seen seen seen voix day compté parce que ñun Sénégal lañ jiite jiite wuñ APR jiite wuñ Pastef mhm. waaye dañ leen a soxla te soxla bi xam nga moo ci lan moo ñu ñëw ci xam-xam ñëw ci débat d'idées benn deuxième bi tu parle de notre doyen. Alioune Tine Alioune Tine un doyen que je respecte beaucoup. Mm -hmm. je fais partie des gens yi nga xam ne moi j'ai un respect extraordinaire ci Alioune ba démb déggante nañ téléphone. c'est un défenseur des droits de l'homme ok bizarrement je suis peut-être la seule personne à Pastef bu d'accord ak Alioune Tine et je m'explique d'accord nga ci li mu wax oui monsieur Alioune Tine a dit que nous avons un état pastéfien oui nous avons un état pastéfien mais c'est quoi un état pastéfien c'est un état boo xam dañ ko adossé sur la philosophie de Pastef c'est quoi la philosophie de Pastef jub jubal jubbanti don le soi pour la patrie. état pacifien mooy état bu dul sàcc état bu dul wax lu dul dëgg état bu dul wurit état bu dul këpp kees loolu mooy un état pacifien donc il a raison nous sommes un état pacifien on a un état pacifien boo xam ne philosophie Pastef di don le soi pour la patrie ci liggéey ci wóor ci bëgg ci fexe servir dëkk bi ci loolu lañu nekk donc il a raison sur ce Deuxième point, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est Ousmane Sonko qui gouverne. Ah bon? Ah oui. xam nga lu tax. Hmm. Je suis d'accord parce que étymologiquement, c'est quoi la définition du mot gouverner? xam nga mooy lan diriger la conduite de trois points de suspension. Un chef de gouvernement, c'est un chef qui dirige et qui fait la conduite de quoi? Hmm. De la politique publique. du président de la république. est-ce que mën nañu reposer à ah, Messi ne ko da mën a fubal Sénégal ngay gis ñoom équipe équipe bi ñëw numéro 10 bi nu ñu ko tuddee mën de jeu. Mhm. ñu ne ko meneur de jeu mooy mooy poste moom loolu la mooy fonction ñu ne ah moom kat day mëne. <laughs> mais bu mëneewul jeu bi lu muy def a chef de gouvernement bu gouverner xam nga a état. Mhm. le président de la république il définit les politique publiques mais ci leadership gouvernemental bi. y aura quelqu'un qui mooy la moo tax ñu tuddee ko le chef de gouvernement mooy yow li nga xam ne tey jii moom la ñu indi yow su boobaa yow yaay gérer leadership bi effectivement maintenant man jéggi naa doyen Alioune Alioune Tine parce que je lui faut beaucoup de respect mm-hmm. mais Mass daf ci am ñoo xam ne man daal jaxle naa Guèye ñoo xam ne ëllëg ñu wax lu jëriñ réew mi saabu ñu xëy xam ci lu ñuy dox mateeg diw bu ñu tuddante Sonko ak Diomaye nañ tàqali ko mais ñii finalement dangay dem ba comprendre est-ce que ñii mais est-ce que xam nga ñaar moo wax la ko maas ñi fi nekk ñëpp opposé wuñ Diomaye de Sonko la ñuy opposé te ba jamono daan baax un président de la république la ñuy opposé mm-hmm. mais c'est la toute première fois àndu ñaari nit déranger ñenn ñi ah bon seen ànd dafa dafa mais mais mais je ne parle pas du camp de doyen Alioune Tine non non je parle de l'opposition daf ci am ñoo xam ne mm-hmm. pour ñoom xam ne ni ñii duñu sàcc ñu këpp kees du ñu wax naka su dul noonu ci jub jubal jubbante la ñu nekk mais benn lañ lañ bëgg mooy ñaar ñi bu ñu àndati mais quel est l'intérêt derrière. Mm-hmm. loolu xam nga ko. mooy fexe ba mooy fexe ba isolé kenn pour mën a def li ñuy def ma leen xamal ne nañu noppalu li tax ñu war a noppalu mooy ñun dafa am fu ñu jëlee senegal mu metti mm-hmm. ay bakkan daanu ay xale ñàkk seen bakkan loolu mënuñu ko indi ba fii tey ay détails duñu ko yàqal. te loolu ñun loolu la ñu gëm. moo tax amuñu problème ak Alioune Tine amuñu problème ak APR amuñu problème ak keneen xam nga lu tax nit ku nekk loo wax Pastef ñun dañoo accepter les ok boo ñëwee critiquer dañ koy jël. Mhm. xool li baax ñu téye li nga xam ne demeewul noonu mais ñu def ko ne le ok mais li ñu mënta comprendre. Mhm. mooy wax dëgg yàlla boobu ba tey. au lieu que ñu wax suñu gaz bi au lieu que ñu wax ci suñu pétrole bi naka lañ koy gouverner. au lieu que ñu wax ne suñu économie nuñ koy def mais fen lañ taxaw. Sonko Diomaye dégg naa tey sax kuy wax ne am na xeex biir palais mais est-ce que vous entendez. <laughs> ay ay yaa war a dem maa war a dem. maa war a dem Touba da ngay dem Touba demoo Touba mais est-ce que vous entendez ces mais est-ce que est-ce que sonnoo yow. <laughs> trop sax. mais gars yi Sénégalais yi sonn nañu effectivement ci lii xew maanaam attanatuñ ko mënatuñ ko parce que dañoo am gaz dañoo am pétrole barki démb mooy lancé nañ suñu gaynde sat bi. Mhm. boo de aujourd'hui boo demee Ghana ñu ngi wax leneen boo demee Nigéria ñu ngi wax feneen mais ñun malheureusement. débat inutile Pastef bëgg na bëgg na ñu yégal niveau bi mais gars yi dañoo téye. dem kuy ah. ñu wax ay loo xam ne ay futilité la loo xam ne gay mënut a jëriñ malade bi tëdd ci hôpital am mënu ko jëriñ. ok merci loo xam ne tey mënut a indi solution ci transport moom lañ ñuy wax. ok merci Bamba ñu ngi leen ñaan ngir yàlla rek. Mhm. man moom tey ci safar gi laa nekk damay ñaan ci ñaan laa dëkk <laughs> mooy di ñaan ñii nañuy wax dëgg. ci njëkk ah ci njëkk nañuy wax dëgg deuxièmement mooy aussi nañu uti xam-xam sàkk ko te su boobaa bu ñu ñëwee nag ñun ak ñoom ñu débat ok merci merci ah merci avant ma ñëw ci Guèye ma ñëw ci euh, Adama après soog a ñëw ci yow. non Adama dina dina euh, euh,